ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Valda Afrique moo leen mbokk déglukat yi docteur Bintou Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Rosalie. chronique numéro 327 docteur tey dañuy waxtaanee mbirum collation maanaam euh, collation yi gën waaye d' abord da ñuy faram fàcceel collation mooy lan. collation lekk la boo xamante ne lu ñuy lekk boo xam ne amul solo comme añ ndékki wala reer loo xam ne la lu ndaw la lu ñuy lekk euh, diggante ndékki añ wala diggante euh, añ ak reer. waaye docteur dañuy faral di dégg souvent ñuy wax ne dañu war di moytu di lekk ci diggante euh, repas yi lan nga ciy wax. loolu laaj bu am solo la li nga xam ne dañ ko war a bañ mooy di lekkantu te xiifuñu. loolu baaxul mooy li ñuy wax grignotage ci ci ci tubaab même bu fekkoon ne heure ndékki dafa jot te te nit ki euh, xiiful war na xaar ba xiif doog a ndékki wala heure wu añ waaye moom xiiful war na xaar ba xiif doog a donc mu nekk ndekki añ reer wala nekkul waxtu bi wala mu nekk entre les repas nit ki daal bu yëgul xiif warul lekk waaye su fekkee nag dafa xiif euh, bu boobaa dafa war a lekk mu nekk heure bum mu warul noonu lekk wala heure bu mu war a lekk euh, xiif daal mooy ne suñu yaram dafa soxla ñam te bu boobaa ñu war ko jox mu lekk. d'ailleurs euh, nit ki nga xamante ne dafa xiif te añ jotagul. wala mu xiif te reer jotagul te lekkul loolu baaxul ndaxte boo añ ba jotee wala reer ba jotee la muy lekk dafay ëpp gis nañu sax ñu bari ñiy def loolu ñiy xiifal seen bopp ñooñu dañuy faral di am yaram parce que bu bu ñu egsee ca añ ba wala ca reer ba seen lekk dafay bari ni ki nga xam ne dafa xiif euh, entre les repas kooku li mu war a euh, li ko war a farataal mooy lan mooy lan laa mën a lekk ak ñaata laa ci mën a lekk ndaxte loolu muy lekk noonu lu ndaw loolu mu war a lekk warul am solo wala warul rëy ba nga xamante ne euh, bu añ ba jotee wala reer ba jotee du mën a lekk. est que mën nga ñu xamal xeetu collation yi gën ci ñun. collation yi nga xamante ne euh, moo gën mooy yi nga xamante ne vraiment daf ñuy daf day tax rees. Euh, et puis euh, mu tax également mu mu nekk ay ñam yoo xam ne day indi suñu yaram ay ferñeent yu am solo ay protéines ay vitamines ay minéraux ci loolu nag mën naa joxe euh, juróomi misaalu collation benn bi may njëkkee mooy fruit rek fruit simple mu ñu xam ban fruit la ñu bëgg bu ñu fàtte suñu fruit yi mel ci suñu dëkk bi temps yi xam nañu am par exemple solom dañ ko gis solom ci marché ya ci mbedd mi ñu koy jaay ñaareel bi mooy lépp li nga xamante ne mooy xeetu gerte wala naamaras wala amande wala pistage moo ñoo itam ay fruits la mais ay fiila yoo xam ne dañu am dawlin donc ki koy lekk noonu bëgg koo lekk collation dafay jël benn ngëpp rek bu ndaw mu lekk ko baax na torop ci euh, ci yara ci ci wér gu yaram ak ci euh, suñu suñu euh, organisme ñetteel bi mooy boole bépp pepp bu ñu neex ak euh, xeetu meew maanaam euh, ci misaal nit ki mën na jël cere ak meew boole ko lekk Euh, wala defar caakri te defar ko defaree ko bañ ko jënd ci supermarché ak guti yi moo gën defar ko ci kër gi moo gën et bu boobaa sax euh, ngir mën a moytu suukar su bari biñ ciy dolli mën nañ ci dolli ay raisin sec wax bu boobaa raisin sec dafa bari suukar mu daf ciy dolli suukar te raisin sec aussi fruit la nit ki mën na jël aussi mu xam sax def ci def ci meew loolu yëpp baax na te bu boobaa benn taas rek comme taasu ndékki doy na ci ñeenteel bi mooy jël mburu Euh, bu ñu jëlee par exemple benn mburu kilo mburu xaaj ko ñeent benn xaaj bi mën nañ ko jël boole ci loo xam ne dafa am dafa bari protéine ma lu mel ni fromage comme bi ñuy diw ci ci mburu yi lu mel ni thon wala benn nen yooyu yëpp baax na juróomeel bi mooy jël rek yaourt mais yaourt nature boo xam ne kenn defu ci suukar kenn defu ci fruit wala njaru sow jël suñ sow def ci ndox bu boobaa euh, bañ cee def suukar moo gën waaye bu fekkee ni nit ki dafa soxla tuuti suukar mën na ci def benn wala ñaari bekki suukar. Euh, docteur gannaaw loolu est-ce que am na ay xeetu collation yoo xam ne dañu ko war a moytu. loolu moom am na mooy bépp collation boo xam ne euh, te sax ñu koy wax aliment industriel boo xam ne bari na euh, suukar bari na graisse wala ñaar ñëpp yu mel ni ay bonbon ay gâteau ay pâtisserie viennoiserie ay comme ay croissant wala am na yoo xam ne dañ koy jaay ci supermarché yi ñu koy wax di barres de céréales wala. baar yoo xamante ne dañ ciy def euh, dañ ko dafa am chocolat euh, nga xam dañ koy euh, du ubbi ci paquet bi rek lekk ko noonu wala ay chips yooyu yëpp ay ñam la ay collation la yoo xamante ne au kon ñu jox ñu indil yaram bi ay ferñeent indil ko kàttan dañuy sonal en fait. docteur bëggoon naa xam tamit ndax tegtal yi nga fi joxe dañ ko war a jëfee ci tout tànk yi. tegtal yi ñëpp mën nañ koo jëfee. Euh, maanaam euh, mag ak ndaw ak euh, ñëpp mën nañ ko jëfee et surtout nag xale yi parce que li ma li ñu seetlu mooy waajur yi léegi nii ñoom dañuy faral surtout ci xale pour xale yi dañuy faral di jënd collation yi ma doon wax ne ni dañu ay collation industrielle lañu bari suukar bari graisse yooyu dañu xalaat ni moo gën ci seen doom yi alors que ñoom li leen war a farataal mooy jàngal seen doom yi ba ñu nekkee tout tànk Euh, nañu war a lekk lekkin bu sell boo xamante ne lu naturel lay doon aussi et en plus fi lekk nii Euh, léegi euh, école ubbi donc maa ngi ñaax vraiment euh, waajur yëpp ñuy déglu ñu commencé di xalaat tàmbali léegi di xalaat goûter yu yu sell yi nar a jox seen xal doom yi ñu yóbbaale ko école. nga fàttali suñu page Facebook. mooy Sud Nutrition ñu leen di wax ngeen ñëw laaj ñu seen i laaj wax ñu ay thèmes yooyu leen bëgg ñu waxtaanee te xam leen ni am na ay chronique vidéo ak audio yu ñu posté ci page bi. gërëm Val d'Afrique di la jaajëfal docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf Rosalie. ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda moo leen doon may Nutrition Le gel main Valdin, efficace sur 99% des microbes. Val vous offre Sud

que ce soit à l'heure habituelle d'un repas ou pas. En revanche, dès l'instant qu'on a faim, on doit manger, puisque l'organisme nous le réclame. C'est un besoin physiologique. En fait, il vaut mieux prendre une collation euh, que entre deux repas principaux que de se laisser avoir trop faim et qu'au moment du repas principal, on mange beaucoup trop. D'ailleurs, c'est un comportement alimentaire, ça, le fait de sauter comme ça une collation euh, en attendant un repas principal, c'est un comportement qui favorise le surpoids. Et la seule question qu'on doit se poser euh, lorsqu'on a faim entre deux repas, c'est qu'est-ce qu'on doit manger, quoi manger et en quelle quantité, parce que évidemment une collation ne devrait pas empêcher de manger le repas suivant. Alors, dites-nous quels sont les meilleurs choix de collation. l'idéal, c'est de choisir des aliments qui sont rassasiants euh, et euh, qui sont nourrissants en même temps, c'est-à-dire des aliments qui sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux. Et selon ce principe, voici, je vais vous donner des idées de collations. Euh, première idée, ça peut être juste tout à fait un fruit, tout simplement, euh, sans oublier nos fruits forestiers. Par exemple, en ce moment, le solum est de saison et c'est très bon. Euh, deuxième idée, c'est toutes les formes de fruits à coque oléagineux. Alors, pour être plus clair, ça va être les arachides, les noix de cajou, les amandes, les pistaches, etc. Mais attention, euh, une poignée suffit euh, parce que ces fruits-là La troisième idée, c'est une association de céréales et de produits laitiers. Par exemple, quelque chose qu'on apprécie beaucoup au Sénégal, du tchéré, c'est-à-dire du mil, de la semoule de mil, et du lait, ou alors du chakri. Et quand c'est fait maison, c'est mieux. Euh, et au lieu d'ajouter du sucre, on peut ajouter des raisins secs pour euh, donner le goût sucré et ça associe un fruit en même temps et c'est très bien. On peut aussi associer du mohamsa et du lait, etc. Quoi, voilà, association de lait et de, de, et de produits laitiers. Et là, en termes de quantité, une tasse, comme une tasse euh, de petit déjeuner, suffit largement. La quatrième idée, c'est du pain. Un quart de baguette suffit avec une protéine, c'est-à-dire euh, du fromage, du thon, un œuf, etc. Et enfin, dernière idée, c'est un yaourt nature ou un verre de nyaruso, c'est-à-dire que une, euh, du, du, lait caillé, mais dilué avec de l'eau, ça permet de diluer le, le gras. Et sans sucre, c'est mieux. Sinon, si on veut vraiment ajouter un petit goût sucré, on ajoute un à deux morceaux de sucre. Mais docteur, est-ce qu'il y a des à éviter absolument. c'est toutes ces collations, souvent industrielles, qui sont riches en sucre ajouté et en gras, comme les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries, les viennoiseries, les barres de céréales ou, ou les barres chocolatées, les chips, et là c'est vraiment riche en, en gras et en, et en, sel, etc. Euh, et au lieu de, nous donner de l'énergie, ces collations-là, en fait, fatiguent l'organisme. Maintenant, est-ce que ces conseils s'appliquent aux enfants Ces conseils s'appliquent à toutes les tranches d'âge, euh, et particulièrement d'ailleurs aux enfants, euh, parce que les parents aujourd'hui ont tendance à privilégier les, collations industrielles sucrées et gras dont j'ai parlé pour les enfants, alors qu'il faut dès le plus jeune âge les habituer à manger naturel et sain. D'ailleurs, c'est bientôt la rentrée des classes. J'invite tous les parents qui nous écoutent à préparer des goûters sains pour leurs enfants. La page Facebook C'est Sud Nutrition. Euh, nous vous invitons à venir docteur Bintou Chersek. Merci Rosalie. Le gel main Valdin, efficace sur 99% des microbes. Val vous a offert Sud